Sonko mu ngi ñëw loolu daal la ñuy nii actuellement nii doole Sonko mu ngi ñëw moo ngi Le président Ousmane Sonko d'un moment à l'autre il va faire son entrée Nous venons, en tout cas le président Ousmane Sonko d'un moment à l'autre il ngi faire son entrée voilà l'ambiance qui se trouve actuellement au terrain de football face à l'estade de, l'amitié de Dakar d'ailleurs particulièrement euh, de Dakar. c'est important et c'est Pikine TV était askan bi rek moo ngi tax di jóg moo ngi Nous avons le de l'amitié en face, vous voyez L'escale Amitié. Quand c'est important, c'est Pikin TV. Voilà. Toujours été askan à moo tax a Mon euh, TV. Voilà l'ambiance qui se trouve actuellement au terrain de football en face de l'estade l'estade ah en tout cas ambiance bi daal moo actuellement si terrain de football en face de l'estade de l'amitié je suis prêt à me nous ñu ngi tas ay t-shirt yu bind si je suis prêt Sénégal campi voilà vous avez vu attends je jumel leen ko mu ngi vous, vous voyez Je suis Sénégal, tant pis. Monsieur, je peux voir Voilà. Sénégal, tant pis. Le 23 juin 2021, nous venons nous affiche pas. Non à la troisième candidature. Voilà. Monsieur, vous disiez vous nañ xam ni ban mouvement la. mouvement bref bref. monsieur s'il vous plaît, vous pouvez relever un peu. mouvement bref. non à la troisième candidature on ne parle plus de troisième mandat. Macky warul déposer troisième candidature. Ah. c'est le mouvement bref. voilà. Mmh. mais li tax nga wax lu ñu neen. parce que du xel. Mmh. le 23 juillet 2011. lii ah. lañ doon xeex. Mmh. moom moo ko jiite woon. moom moo ko jiite woon. le non M23 Macky Sall moo ko joxe. bu mhm. ñu ba léegi encore bëgg am troisième mandat du am. du am si suñ question de presse dama moo ko wax ba pare. te gëm nañ ne sax li mu wax dina ko respecté. Mhm. ñaari mandat la c'est fini. ah dégg ngeen ni sëñ bi wax dëgg Macky Sall moom moo ko wax moom moo ko tudd ah du samay kàddu nag ay kàddoom la ñoom ñu ngi ñoo yor seen i affiche ñu la voilà. présidente mouvement national Ah. Pastef ànd ak le président Ousmane Sonko teew fi tey nag ànd ak jigéen ñëpp gis ngeen leen ñii ñu sol seen yu xonq

nee na dégg naa li ngeen wax waaye man xam naa ne léegi dara donc genre manifestation yi li koy wund mooy une jeunesse mécontente mooy jigéen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kër yi ñoo war a téye njaboot itam jaaxle nañu kontaanuñu mag ñi nga xamante ne aussi couverture sociale ak lu bari war na ko ak ñoom kontaanuñu kon bu ñu neexee ñu ne Sénégal tam mais Sénégal tam du wax kese dafa and ak jëf dafa and ak action kon tay M2D bu wootee dañ cee wara am taxaway bu mat sëkk ndax en tant que politique mais en tant que citoyen en tant que patriote en tant que nationaliste képp ku nekk Sénégal gii li ñuy xex war na doon sa itte ndax Macky Sall kat fi mu jëm ak ñun gis ngeen ni mi ngi renforcer son dispositif militaire

kaw sénégalais bi di teg ci kaw seen jigéen seen i yaay seen i rakk mais ci seen i doom parce que ñiy xeex du kenn ku dul ay sénégalais amuñu lu dul Sénégal Sénégal bu tàkkee duñu am fenn fu ñu daw duñu am fuñ koy waxee kon nag dinañu xeex ba réew mi changé bëgg jël askan wi nag mettre leen face à maanaam les forces de l'ordre et la population président bu am yërmande du ko def président bu démocrate du ko def président bu am yërmande ci askanam parce que Macky Sall son problème c'est ça amul yërmande ci sénégalais

kon ñoo koy wax ni muy mais c'est pas le ñoo ko fal ñun ñoo koy wax fan lay jaar te loolu lay def non seulement def ko mais wëlbatiku na léegi nag di ñu jaay doole dinañu fa bugguñu ay bugguñu coow mais Macky Sall lu mu ko jaral jaral waaye incha allah troisième mandat du fi am ndax moo waral mbaboor ñëpp waaye lenn dinañ ko ko xamal dugg na ñu rubba te bu soobee yàlla. lépp lu mu bëgg may ba sonn nañu baat. nañu may baat. Macky Sall. sama gaañ yi ñu jàpp ci ñu bàyyi alentour yi ñu ñëw fii ci penc mi nanu ñëw fi muy xewee nanu ñëw fu muy xewee nanu ñëw fu muy xewee jóge leen ci buntu kër yi jóge leen ci alentour yi nanu ñëw fu muy xewee. ne suñu Sénégal neexul suñu Sénégal ci ñoom Macky ku ne suñu Sénégal neex na yow naan pétrole ba am nekk dama koy aj de bu ngeen dama koy aj exclusivité fii laa koy njëkk laalee mais il faut ñëw acca guys, il faut ngeen jóge ci alentour yi ngeen ñëw ci fii Senegal Sénégal musula naqadi Sénégal musula naqadi ndax lu waay di jaay nit a ngi koy jënd di maye Sénégal musula naqadi Sénégal musula naqadi Sénégal ma naqadi ndax lu waay di jaay nit a ngi koy jënd Sénégal mosula naqadi ndax lu waay di jaay nit a ngi koy jënd di maye nit a ngi koy jënd di maye loolu mooy réponse bi Sénégal mosula naqadi ndax lu waay di jaay nit a ngi koy di maye Sénégal mosula naqadi ndax lu waay di jaay nit a ngi koy di maye lu di jaay nit a ngi koy lu waay di jaay a ngi koy dimee ku troisième candidature du Nenko ku ñu troisième candidature du Nenko ku ñu troisième candidature du Nenko Quel moment Sénégal Sénégal Sénégal vous foncier ou kan Sénégal, titre foncier ou Kalla. Le peuple est souverain. Ce pays nous appartient. Ce pays appartient au peuple, aux vaillants soldats sénégalais. Quel moi mon Sénégal Le peuple Quel moi mon Sénégal Sama gars xam nga man lépp luy naqadi Macky Sall daf may neex lépp lu koy naqadi daf may neex lu xam ngeen loolu te actuellement Macky Sall il fait bien sa sieste parce que xamul ni waa Sénégal yëpp daje nañu fii tey di ko wax non à la troisième candidature non non non sama gars dafa lëw Macky Sall yegul déggul ni sénégalais le ñu ngi daje à la troisième candidature. ku xamul buur saay na ku xamul suur naa. dégguñu ku xamul suur naa. ku xamul suur naa. sama gaañ xam ngeen lan moo lan moo tax ma ne Sénégal mosul la naqari. parce dama am commencé am contentement. ci ni Sénégal nar a demee ëllëg parce que Sénégal rek moo ko fi indi. la présidence de sinon après Macky Sall ñi amuñ sax discipline bëgg ma fi jëlee jàpp leen ci sama gaañi sama gaañi dem leen ne waaye te yàlla ji tax. xoolal su benn groupe wàcc koo rek léegi ñeneen ñi topp leen groupe bi sama groupe bi rek bu ñu wàcc koo rek léegi ñeneen ñi topp leen waaw waaw dem fële dem fële ci kanam dem fële ci kanam dem fële géej gi def may ñëw lu lëndëm dem fële dem fële bokk bool ak Macky Sall dem

waaw kong nii. Mame Diarra Fam bu parti démocratique député à l'Assemblée nationale moo toog nii. mais bii moom man maa leen ko ñaan man je suis euh, Bamba Tukuba kii yàlla ngeen dimbale. sama gars yi. jàpp leen ci rek ngeen dem ci kanam. maa ngi poosu tàngal ku dem fële dinaa la may tàngal dem leen ci kanam. tàngal bong bong lépp ngi ci sama poche mais mais ku ci bëgg a am da ngay dem fee ci kanam waxal ak ñoom. Eh, képp ku bëgg Ousmane Sonko rek ku bëgg Sonko rek demal ci kanam. képp ku bëgg waa MDD demal ci kanam. sànq ñaay sunu koom-koom fu neex waay mu sàkk jiital réacteur ba noon ñëpp jëkk dinu jàngal xam-xam bu dul tax a jekk Sénégal ku lay dimbali du la wàkk Sénégal lanu xàll wenn yoon wu nu bokk ngir moo xam ku dul ku jub du ca nekk xalaat bi nay benn na ci ñëpp jokk na way wi doon wenn nanu bokk bakk sunu àndee boroomi xam-xam di ca ñàkk ñu lëngoo boroomi doole ku ne ñëpp di bokk ñu ànd ak alal ku ne teg sa tànk bu ñu bëggee teglu teguwul ñu lànk Sénégal sa coono wii mooy ñam wi ñàkk te jàng ak sàmm la ñu xam naka jekk tëgg ak ëwëg ràbb sax leen ca dakk buñ ko defee diir bu new jant fenk bu ngeen sàmmee te moytu yi war da ngeen jàmmal réew mi ndaxam jëf leen ñuy ndaxam dox leen jëm kaw nañuy mànkoo ci jub ngir kaaraange gi doy lii lan nu foogee leen baaxoo eski ñu ngi waa doomi mi ndax ñu bennoo tey déggoo bay dënko baaxul day digal gaal gi Sénégalu jàmm ay gaynde koy tabax yu dëggu ay pas-pas yu sell ci bokk xaalu leen yoon yi ngir dem Sénégal tampi Sénégal tampi Merci beaucoup. stade... à dire Ah, en tout cas, ambiance bi daal moo nekk nii actuellement si terrain de football bi en face de l'estade de l'Amitié. Je suis prêt à na ñu sax ñu ngi tas ay t-shirt yu bind je suis prêt Sénégal tant pis voilà, vous avez vu Attends, je mets l'encore. Moi, non. Vous, vous voyez Je suis prêt. Sénégal, tant pis. Monsieur, je peux voir Voilà. Sénégal, tant pis le 23 juin 2021 nous venons nous. affiche pas nous. non à la troisième candidature. voilà monsieur vous disiez. non à la troisième candidature. Vous n'avez pas ni ban mouvement là? mouvement prêt prêt. monsieur s'il vous plaît vous pouvez relever un peu. mouvement prêt. non à la troisième candidature on parle plus de troisième mandat. Hein? Macky warul déposer troisième candidature. c'est le mouvement prêt. voilà. Mmh. mais le temps nga le même. parce que 23 juillet 2011. Ah. lii lañ doon xeex. Mm-hmm. moom moo ko jiite woon. Mm-hmm. moom moo ko jiite woon. Mm-hmm. le mooy M23 Macky Sall moo ko joxe. moom ba léegi encore bëgg am troisième mandat du am. du am. c'est une question de presse te moom moo ko wax ba pare. Ah. te gëm nañ ne sax li mu wax dina ko respecté. ñaari mandat la ah, ah dégg ngeen ni sëñ bi wax dëgg yàlla Macky Sall moom moo ko wax moom moo ko tudd ah du samay kàddu nag ay kàddoom la ñoom ñu ngi ñoo yore seen i affiche yi la voilà. nit ñi jël ah la ndax femme yi boo fi nekk naan di lakk ay créole ay espagnol ay italiano ah man daal maa ngi tuuti rek si affaire yi ñu xool tuuti rek benn affaire bu ndaw rek déglu na day doy mais leen ma fi mu nekk nii maa ngi assemblée am jaara il faut être sérieux quand même ah, nous voulons de la mafia du va faire fuir la mafia du Satch et du Katch nos troisième mandat peuple bi léegi si kanam nag xam nga kan nañuy jox kàddu gi xam nga wax waa xeet dafa am wax ba pare tegu ko Macky Sall nañuy jox kàddu gi si kanam ngeen déglu li mu ñu waxoon ak li mu def tey loolu si kanam lay doon dama bëgg rek ngeen waajal ko. gaay yi xolol li ma leen di wax rek ma gis tey dafa dal sama xel que yéen ñii ku leen gis xam ni ko jaral mu jaral lim loolu moom amu ci lu may werante ko jaral pour jéem a yàq suñu dëkk jalgati sunu constitution pour def troisième mandat dinañu ko jaral pour ñu xeex ak moom loolu mooy dëgg léegi nag moo tax ma yi bu bu kenn layam layami nañu taxaw taxaw te jàmmaarloo ak moom xeex ak moom wan ko ne réew mi muumu ko mandaam jeex na ñaari at moo ko dese dañuy abal ñu fal keneen mu jiite sunum réew tegaat ko ci yoon

mafia bi mi ngi tàmbalee ci réseaux sociaux yi mais ci terrain bi lay wàcc jàkkaarloog moom li ñuy wax loo gis dafa am bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim mooy réseaux sociaux yi mais alhamdulilah rabbi alamin mooy terrain bi ñuy wàcc nara jàkkaarlook moom. léegi nag mafia bi dañ dañ ma yebal bu ma indi ay revendication benn bi mooy na respecter démocratie ci Sénégal na organiser élection yi ni mu ko fu mu ko war a organiser respecter le calendrier électoral beneen bi mooy. na bàyyi nerf yi muy jël di ko dóor ci kaw population parce que citoyen ay napp nañ ñoom ñoo ko indi au pouvoir moom tey moom su aussi mbindaan est-ce que yéen a dégg wax bi moom mooy sa di war a liggéeyal sa mbindaan bu la liggéeyul noo koy def. président انا وصلك قلبي اما شاف اما شاف مني وطنت في الطفل بايل الوح وخبي واو واو واو يوفي جرد جانب يا في قلبي فقط من دفقني وانا يا يتفلي

Imagina, eu vou te dar um lenta. qui nous le pouvoir, Voilà l'ambiance qui se trouve ici. Dakar naaf ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waaye est ce que xam ngeen loolu ban conséquence la ñu loolu dafa waral famille yu bëri tas nañu ci jamono Macky Sall loolu dafa waral fa père de famille yu bëri ak seen i njaboot amatuñu ay prise en charge en charge médicale amatuñu ko. dàq nañ leen jëlee seen loxo. bu faloo moom li mu yaakaaroon ne moom li mu ñu gëmloo woon ak xew tey c'est diamétralement opposé ñoom ñoo nekk di souffrir di souffrir mu leen di humilier di jël ay nitam di leen teg suñu kaw tey man damay invité liggéeykat yi nekk ci réew mi dañuy dund injustice nañu fexe boole suñu doole yàlla xam na ne ñu may ñëw ñu bëri ñëw